بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع waaw ah, salaamaaleykum wa ñoo ngi leen di fay di wax ne li tax ñu ci kii bi yàlla mooy seet ñëw jël si kii suñu champion bi mooy soxna Ndaté Cissé macha allah dëgg yàlla def na loo xamante ne si moom suñu suñu mbégte ci ñun ñëpp surtout waa Sénégal jëlalu ko waa Touba kese waaye waa waa Sénégal si jëmmum la ko jëlal wax dëgg yàlla macha allah mooy koy ñaanal muy njiglaayam te mu mu mu ko. wax dëgg yàlla ñoom ñoom moom. comme fekkente ne ñun suñu suñu biir. balaa ngay dem kenn ku ci nekk balaa moo dem faaw ku gën a jege rek ca moom lay dem nga xam ne koo xam ne yàgg naa dem ci concours ci moom lay dem mu jox koy conseil waxtaan ak moom ba xamante ne si dellu comme xelam dellu si na ba xamante ne si dootul xalaat dara doo comme bu demee ba foofu dara dara du ko jaaxal daal waaw man wax dëgg yàlla nag kontaan naa trop ci concours bi ñu doon def wax dëgg yàlla kontaan naa te li ma si gën a neex nag mooy ragalu fa kenn amul kenn ku muy ragal foofu. xam nga bu fekkente ne. waaw xam nga fekkente ne euh, Sénégal surtout nit ku ñuul. buñ démé ci genre concours yu mel noonu buñ gisé nar yi ni ñi taré ak tamit alcorane bi ñu wàccee ci ñom tamit dañuy dañuy xaw a mel ku ragal ku leen xaw ragal ku am complexe ci ñom wayé nak moom wax deug yàlla yàlla def na ne mom suñ suñ borom sutural nako ci lool waaw may jàngé ci riwayatu Bazzi an Ibn Kathir ma sha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمين الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم